asalaamaaleykum mbokk yi ak xarit yi fii ci Lougaré TV ah, tey seen émission wa ngi noonu jeeg ak Euh, sëyam jeeg ci biir këram mais ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax a baax di leen wax ne namoon ngeen ñu mais ñoo leen raw namoon nañ leen trop naka coono màggal gi mbaa yéen a ngi reposé wu bu baax a baax maa ngi euh, toog ak samay doomu nday ah di wax ni plateau bi duma ci wéet mukk maa ngi toog ak euh, Maya sama doomu nday toog ak sama invité bu ñaawul bi Ndeye Gueye ah maa leen di nuyu di leen ziar Maya nuyu naa la ziar la. maa lay fay Ndeye Mariam di nuyu ki nga xamante ne mooy invité bi di nuyu tamit mbokk internet yi nga xam te ñoo safo Lougaré TV waaye tamit petit coucou waa TikTok yi nga xam ne ñoo ngi ñuy suivre euh, di leen bàyyi xel ñoom tamit di leen wax bienvenue dans vos émissions c'est yu jeeg ji. Ndeye Gueye nuyu naa la sama invité bu ñaawul bi. asalaamaaleykum waa Lougaré TV nuyu nañ leen jaar nañ leen mbaa yéen a ngi am jàmm ñu ngi nuyu Ndeye Marème Dieng di nuyu Ndaya. mbaa yéen am jàmm di nuyu waa inter kii internet yi ak waa TikTok nuyu nañ leen yéen ñëpp di leen safoo di leen tiitaroo. di leen safoo di leen tiitaroo suñu mbokk internet yëpp ah ñu ngi leen di nuyu di ziar ñëpp tamit kullukum kullim rek ah day juum waa tey nag euh, ñu am gan gu spécial muy Ndeye Gueye muy sama xarit nag di sama di sama doomu nday aussi tamit nag. Euh, tey nag nday ñu ngi ñëwoon tey doon waxtaan ci li nga xamante ne nii mooy wujju peccorgo nga xamante ne nag euh, kër yi des fois nag mu yëngu yëngu yëngu bu doy waar ci wujju peccorgo yi parce que ku ne wujju peccorgo rek xam na li tax ñu naan wujju peccorgo mooy ñi nga xamante ne seen jëkkër yi dañoo bokk nday ak baay wala ñu bokk baay wala ñu bokk nday nday waxtaan baa ngi noonu ah macha allah jànk fi nga dugg am na solo lool ndax euh, wujju peccoor ko jamono tool nii dafa doy lool lool lool lool bañ ba dañ sax wujju moo gën a sedd wujji peccor ko wujji peccor ko moo gën a metti ko wujjee ndax am na ci ñoo xamante si tey ji bu ngeen nekkee ci kër gi du ngeen am jàmm du la yéene jàmm du la yéene salaam ndax tey ji boo amee mbubb mu bees da koy métti lu sa doom bu sañsewee xolam du neex kon tey fu nit ñi di mujjee ak euh, wujji peccor ko yi mm. est ce que jar tam ñi dëkk tam yenn wujji peccor ko yi am na solo Ndeye Gueye est-ce que jar na ñuy dëkk ak wujju peccar ko mais man dama naan fu nit bonee rek am na ku baax ku nekk aussi tamit ca wet ga parce que bu ñu waxee rek du wujju peccar ga yëpp ñoo bon am na ñu baax aussi tamit Maya loo wax. kii fi mu daanelee foofu laa jële parce que tamit da ngay nekk ci kër ñëw di sëy sa jëkkër amul dara yow nga boole rek yow sa caprice su jëkkër ak sa métit bi ngay dund sa néeg nga bëgg koo boole ci ay wujju peccor ga ay ay ay goro yoo xamante ni c'est banal daal parce que sam jàpp naa ne nit bu bàyyee kër ndeyam kër baayam ñëw ñibbisil góor kon da war a kooku da nga koo war a jàppale ndax sa càmmañ loo ko bañ bañ sax sa càmmañ war na tax nga jàpp ko mais comme kii lu mu wax rek léegi wujju amatul problème ndax da ngay xam ne kii ñoo bokk jëkkër ñoo bokk lu ñuy partage yow mais da ngay nekk da ngay nekk si kër di sëy sa raxu jëkkër wala sa magu jëkkër di la teg mitit yoo xamante ni di la teg coono yoo xamante ni te tey jii nii sëy bëri ñu ngi tas goro bu ko tasul euh, wu ci peccor ga moo ko tas yow da da nga naan sama mag lu mu liggéey da koy jox da koy jox ñun duñu jox dara tey jii nii jigéen ñi dafa tuñu dañuy bokk seen natt yi baax mm-hmm. dañuy def seen i condamné mm-hmm. léegi loolu bu ñu ko jëlee def def def ci seen bopp yow nga foog ni sa càmmoñ moo leen koy jox léegi sa càmmoñ lam la doon jox joxatula ko loolu mooy indi jalousie bi loolu moo ciy indi lu bari moo tax ba jigéen ak jigéen daal dafa bëri dafa bëri ay problème ay kalan yu bëri man gis naa koo xamante ne wujju peccor boobu moo ko wutal wujju oh. wujju peccor moo ko wutal wujju dafa jël xaritam fexe ba màkkaroo ko ak jëkkër ji fexe ba ñu sëy léegi ñu ñëw moo xaritam boobu def kamaa xoolal ci koo xamante ni ba muy ñëw ànd ak sa mañ amul dara di ko suturaal di ko suturaal di ànd ak moom di sëy moom te yàlla rekk tax te kooku day bale mhm. day fóot te loo xamante ni sama genre yi tey buñ duggoon ci néegu sëy duñ ko nangu man ku ma nar a fóot ay xale góor samay rakk jëkkër soo nee ma fóotal ma la fóotu ma fóotalu ma sama bopp bay fóotu kenn te aw ma jot kooku boole di def loolu yépp kooku loo ko war a def bëgg ko hmm. jàpp ko ndax la effort yi muy def te te man damaa jàpp ni wuji péccorga yi def yooyu noonu hmm. xanaa xalaatuñu ñoom dañuy dem ëllëg sëy ji hmm. te dañ ni li li nga leble loolu lañ lay fay tey jii leer waaw xanaa ñoom dañoo foog seen kër ndey seen kër baay fa ñuy deewee wala seen jëkkër yi la ñuy muur ñu ñëw sëy si nañ xalaat ni ñoom tamit dañ leen di muur ñu dem dëgg la Maya loolu am na solo mais Ndeye Gueye man damay dégg ñu naan wujju peccorgo moo gën a garaaw fuuf wujju boo bokkal benn jëkkër dafa leer mhm. <laughs> waaye fi réew mi <laughs> jant teg ñu ci accident. Ah, billaay dafa am ñoo xamante ne si dañoo danse ci nañ ko mun a waxee. Mhm. billaay duñ yéene kenn jaam. Mhm. bëgguñu dara kenn am jaam pour ñoom bu ñu nekkee ci kër ñoom rek ñoo war a nekk nit ñoo war a xàppi ñoo war a bëggee ñoo war a zalone yaa ngi dégg mhm. te du noonu ndax nag yàlla dafa ñuy boole ci kër ñu ñëpp. ñu nekk ci mais am na ci koo xam ne kooku la yàlla di gën a may. am koo xam may ko dara mm-hmm. mais tey yow boo amee ngay concurrence te suuji peccago bi ne ci kër gi nga xam ne loo xam jotul ginnaaw day metti su ko defee ñeneen ñi ñëw di solidarité histoire léegi nekk ci kër gi mm-hmm. ah man de wax dëgg yàlla sama wuji peccago ma nekk ci kër ga moom macha allah mm-hmm. tëbbantewuñu ay tànk daf ma yéene jàmm ma yéene ko bañ na ba sama doom bi ma mujjee am sax moom laa ko tuddee kon xam nga kooku noonu macha allah ci wuji peccago tey amaanañ tey bu kër gi yëpp meloon ni suñu kër googu noonu ak ah, jàmm dina bëri nañu yéeneente jàmm rek àddina amul solo bu di peccoogo moom du dara bokkuñu ci kër bokkuñu daal nañu yéeneente jàmm loolu kese la. àdduna amul solo nañu yéeneente jàmm comme ni ko day ngay waxee mais Maya damay tourné waat ci yow parce que des fois dañuy dégg ñu naan ay diw fee doomam feebar na may dégg ñu naan ay wujju peccorgoo moo koy liggéey dugg na fii fii la xare jaar daal. waaw loolu am na parfois nag ñun dañuy juum. Mm-hmm. parfois nit am na nag am na ñoo xamante ni dañuy nekk yow tey jii nii dañuy am na wujju peccoog dañuy dem ñami ji mu saf ñu daw ñëwaat mm-hmm. dañuy dem seen sëy saf ñu ñëwaat léegi nag yow ma fa nekk ñu buntu xatal la mm-hmm. te ñoom dem nañ ba xam na mu mel de au lieu ñu jàppale la comme yow yaa ngi toog mm-hmm. dañuy ñëw di la buntu xatal fekk ñoom jur nañ foofu ba sonn ñëw indi seeni doom yow sa doom xaw xawee raw seeni doom tuuti rek jug nañ dem si maara doy na waay am loolu loo ci xalaat ah. parce que ah, damay dégg ñu naan comme li ma wax mayaa rek parce que da ngay nek ak sa wuti peccor go ci sa biir ci benn mhm. euh lu lu toll ni alfatal ay ni bu ko dalé rek ñu ne dem tàntaan do manam wuti peccor do yaayam. Mhm. loolu lañuy wax. Mhm. ndax tay ji dañ nan xoolal doomu ndéygay réussir na. Mhm. man sama doom amul dara bu soobee yàlla doomu ndéygay naa ko fa xastal ba du dem. Mhm. comme sama doom mi ngi toog doomu ndéygay dina toog. dëgg la te du noonu yàlla moo bind njabootam. Mhm. te yemalewu ndax yàlla daa njaboot kenn ku ci nekk ak ni mu neex ni mu koy defee. kenn ku ci nekk ak li mu lay séddale kenn mënu ci dara. nañ bàyyi yu ñuy def. àdduna amul solo doomu ndéygay dem na doomu ndeyma dem dem na ma yaani sama doom moom tam fu mu jaar dem wala ñu ñaar nit ñu daal toog. amul sens ndax kenn ku ci nekk ak li la yàlla may ndax ñu ñuy toog nii tolloowuñ mhm. kii dafa am yaram kii ndaw kenn mooy loolu mooy la juróomi baaraam yi mhm. kon nag nañu yaatal rek

sama jëkkër moo am mais man bi nga xamante ne nii sama jëkkër moo am moom moom moom moo lay jox yow boobu mu lay jox man mën na ma bañ a neex amaana man mën na ma bañ a neex te loolu mën na dem ba nga xamante affaire u jalousie mooy ciy dugg sax nag dëgg la affaire u jalousie mooy dëgg la donc man la am na ñoo xam ne tey ji bëgguñu loolu mhm. comme tey ji ñoom bu ñu bu ñu bu doon seen sago jëkkëru Ndeye Mariam moo sama jëkkër mhm. moyen te bu doon seen sago man su ma ayoo jëkkëru Ndeye Mariam ni ma joxe naa génn ci mbedd mi di tol talaat kër gu ne ma dugg fa lépp kër gu ne ma génn fa àbb mhm. su ko defee su ma génnee lu ñu ñëw naan xoolal jeeg bi ñuy ne ci kër gi di sëy ay mbokkam yëpp a ngi am mais faale wuñu ko bu ayewee dugg ci koñ kër gu ne mu lewaatu fa lim toggalee ay njabootam jëkkër ji lu mu koy doyee ah ndaw si de moo ñàkk fayda mm-hmm. am ñoo xam dañuy toog ci Medina pourtant de jëkkëru Ndeye Marème am na de mënoon na ko jàppale mm-hmm. mais Ndeye Marème moo téye loxo jëkkëram ba mënut a jàppale ndéygéey dëgg la et pourtant jëkkëru Ndeye Marème ak jëkkëru ndéygéey ñoo bokk ndey ak baay dëgg la ñaari jigéen ñooñu góor ñi waruñu di nangu seen jabar yi di leen jaxase mm-hmm. ndax nag euh, ñoom ñaar bi ñuy juddu ñoom ñaar yooyu ñaari jéeg yi fekkee fekkewuñ ko ndax ñaari jéeg yi sa yaan gis lañ ci biir kër gi dëgg la ñaar ñee waruñu di nangu ay jéeg di leen jaxase ci biir kër man d'accord ma yow mii di taam ci kër gi boo sarak bu amulee geesu sarak mm-hmm. loolu mooy tax mu neex ndax dañ ne ki jiitu na may loxo ki ne ci suuf mu dëgg la mm-hmm. mais tey ji bu ki am naan man duma jappale kenn kon kër gi du mos a neex. Mhm. nañ jàppalante rek nak muy neex man mo saa su ne rek ci jappalante la neex. di jappalante ngay neex nañ social ak na mu solo li ñuy gën ci mbedd mi tàllal keneen ak ah, buñ ko jappé ci bi kër gi mu daal neex hmm buñ ko jappalé ci kër gi day daal di neex ba neexee xeexee sax nak lay wax. ma tourné waat ñëwaat ci Maya ba tay ñu nekkat ci cadre wujju peccorgo goy parce que Maya damay gis ne tay sama wujju peccorgo ga maanaam bu ñu amee fu xamantene ne manam xew ñu war fa dem Maya da ngay tok di xaar man ba ma sañsa ba solo ba genn mm. ngay dogo solo wala soit boo ma bu ma soloo ba mu leer man li ma soloo mënoo koo solo jaral na la nga yebbi parce que lépp ah ci biir kër gi la xewee mm-hmm. lépp ci biir kër gi la ma yaa dëgg la dañoo nekk si jamono defante mm-hmm. te xale jigéen ñi dañoo jël defante jéeg ji sax laay wax dañoo jël defante indi ko fii uh-huh. dangay nekk si kër nekk ak sa wujju pétrole comme kii lu mu wax yow sa jëkkër am moom amul te gis nga jigéen lu mu la ëppalee wala jëkkëram def la ko heure bu ngeen xuloo benn baat ñaar mu wax la ko mm-hmm. xas la koy def te àdduna du noonu tey jii nii mën naa am sa jëkkër am na man sama jëkkër amul dañuy dem xew nañ nañu xool même bu dul bu dul entre jigéen sax ñu xool ni suñu jëkkër yi ñoo bokk ndey ak baay te suñu doomi ay doomi baay lañ mm-hmm. ma yëkkati sama yére jot na la solal bii ma sol bii ñu dem mais non même bu ma ko defee sax si biir dinañ xuloo man la yow mi nga xam dañuy dem bërëb sàngam amoo loo sol maa ko yëkkati jox la devant la public moo tax dañoo nekk jamonoy defante moo tax kër yi pour ñu defar ko moo tax léegi xale góor yi dañu kenn dofatul bala ñuy takk jabar ñii dañuy wut seen appartement am ñoo xam tamit dañuy wut seen kër parce que xam nañ ni jigéen dafa bëgg defante te jigéen du bàyyi dara te jigéen bu la bëgg a jot mu mu nekk wujj peccor ga mu nekk wujj mhm. mu nekk sax goro bu la bëggee jot foofu dalay jot te jigéen yu yeewandoo si kër loolu mënu caa ñàkk ma ne la jànk su mhm. tawee foofu sa baaraam mhm. ndax gis na da nekk ci kër jooma ma loolu mel nu la neex te yoroo dara dëgg kii du la bëgg gis nga nga nekk sa wujju peccagu ci biir kër bu ngeen dem xew xew boobu nga wax noonu lay maree mm-hmm. nga sàjj ba mel ni per su wujj pecc nga neesaan sol lu oyof ndax loolu la ko yàlla may. dëgg la ndax ku nekk li nga am moom ngay duggee marché. Mm-hmm. yaa ngi dégg bu ñëwee njëkk yi goro yi nañu bàyyi wujj pecc yi li ci biir kër ñu sëy. Mm-hmm. ñu xam ne ñoom ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi seen doom ay doom bàyyi ñuy gënalante ba pare ñoom xooluñu ku yor ku yor ñoom kay ñëw di leen jox. Mm-hmm. tey jii kuy tey nga doon sama gorom. Euh, bintu ne sa gorom man mm-hmm. nag may ñëw di la jox yi vaar fu ñu tasee maa lay bokkal nag may téewee doo ko téye bintu yow xooloo ni mm-hmm. jëkkëru bintu amul de sa yoon nekk si danga naan comme maa lay teral maa ñëw di la nuyoo ay vingt mille ay vingt cinq mille maay goro bi gën ci yow foo toog man ngay tagg bakkee te kee yow leer na ni la Euh, lekk sax bu amee ca kër ga moom moo dem ñafe yi laay jëkkëram am mais yow loolu sa yoon nekku si loolu moo tax ñuy gënalante alal waaw alal rek gis nga gis koor koor bu desee koor suukar koor li ñu koy defante di ko. wala suukaru koor alal bi kese. du man du forcer que suukaru koor forcer du xoolal comme genre goro yooyu yow say yëpp macha allah yàlla dalaa may doomi góor. nga am ay goro yu bëri. bëri toog nga seppi si kenn. Mhm. di wax yooyu tay kooku day gis boppam te xamoo yow kooku jëkkëram nan la ko téewee. Mhm. kooku yore njabootam rek dafa doy. xanaa xamoo njëg yu bëri seen goro yi ñooy xaawi seen suturay doom ak leer te xam nañ seen doom waaw ak leer xam yow mi seen doom yoru yow mi ndaw si nga ci biir kër gi nag di sagal lool di santi suba ngam gu deg ba ci mel nu la neex te seen doom jox la ko de ndax yaa ngi di sa ndax jamono ji dafa xam gis dañ sa tam tube ñi dara fajar jigéen ñi ngay tase yoon marché passe sama classe gi nga xam tey ji ñoo ni mel nu leen neex këriñ la jaay te dañ koy allah nu leen neex ci dara tàllaluñu kenn loxo bàkk yeneen bi mais am na ci ñoo xamante ne si tey jii ñooy xawi seen suturay doom mm-hmm. ndax dañ naan ah diw de moom na mu mel jëkkëram moom koy jox mm-hmm. jëkkër ji de da koo naan jëkkër ji de jëkkër ji xamuñu dara moo tax jigéen ñu bëri tey ji ku ci fépp bu waxee rek nga ne ah kon kii nekk lii lay dund lii kii nii dañ leen di tooñ dañ leen di poussé ci miir wis bi yooyu lañu war a bàyyi gis nga ni bu toogee banku nañ ko bàyyi bankoom. dëgg la bu toogee banku nañ ko bàyyi bankoom ndax nag euh, nee nañu kii góom góom bi boo sottee alcool la wala kii bitaat bitaat bi. bitaat bi la waaw daal di sax borom na day daal di day daal di mm-hmm. te bu fippoo rek daal di tojum réew. bu fippoo rek day daal di tojum réew comme ni ko sama invité bi waxee Ndeye Gueye mais Ndeye Gueye dama gis comme ni ngeen ko waxee sànq yow ak Maya. comme li ngeen ne goro ak njëkkee yi mën nañoo jaxase ay wujju péetéergo ak ay dëgg ak ay wóor mais ndéggee damay gis tamit même day euh, répété wu ba ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy seen doom yi te pourtant xale yi ñoo bokk benn baay mais da gis ku ci dóor sa doomu moroom rek da gis mu indi affaire boo xamante ne nii yow daal après doo doo doo comprendre xaw ma dañ ci dañ ci dañ ciy indalante dëgg la mën nañ jur indalante mën na jur ak maanaam lu olof Ndiaye dàq ginaar waxaale sa soxla. dëgg la mën nañ fa amee foofu bunt. dëgg la dëgg la mm-hmm. ndax am na ci ñoo xam ne tey jii kenn du seen doom. Mm-hmm. tey jii am na ci ku ñoo xam ne kenn du laal seen doom. Mm-hmm. mais am na ñoo xam ne nag kër yoo xam ne boo duggee doo xàmmee ki kii jur ak ki kële jur. dëgg la doo ko xàmmee mais am na ci ñoo xam ne tey jii ñu ngi yàkkamti rek. doomu ndey Mariam laal doomu ndéygéey ba ndéygéey jug mun a jàppanteeg ndey Mariam ndax ndax ku ne ndey Mariam boor bu ne mënu ko am mu daal di ko jaay man moom saay su ne dama ko dama naa man ku ma bëgg a jot bu laal samay doom mhm. dafa direct ci man ndax samay doom boo leen dóoree tamit damay jàpp ni dama jàppale ci éducation bi mhm. man sama doom bu defee dara nga door ko dama lay sant gërëm a ndax na naan danga ma jàppale ci éducation ndax man du chaque jour laay toog ndax maa ngi ci tine waaw loolu la tey jii boo ma dooralee sama doom mais sant yàlla ndax dama naan kii na sama doom. Mhm. mais tey boo ko toogee tey di ko seetaan muy def yenn yi nga toog di ko seetaan dama xam ne kii carrément ni bëggul sama doom. dëgg la mais tey bu defee dara nga dóor ko pour yaay ji mhm. ah yaay jooju waxee ni wérul. waxee wérul de. dëgg la mayaa ma tourné waat ci yow euh, des fois damay dugg ci benn kër fekk fa ay wujju peccoor ko mais doo xam sax ndax ñi ay wujju peccoor ko lañ wala ay mag ak rakk lañ parce que suude bi nekk ci ñoom boo duggee ci kër gi sax doo xam ki ayee ak ki ayoo ñoom ngay fekk ci biir ma euh, waañ bi. parfois dama naan goro bu góor dafa baax si kër. Mm-hmm. parce que kër gu am clan am ay saytaane heure boo fa demee. Mm-hmm. goro bu góor ba dem fa dund. dëgg la goro bu góor dafa am solo lool si néegu sëy am solo ci biir kër. Mm-hmm. ndax yu bëri. moko mana moko mana moo moko kamu parce que moy am ba ci keur ga. mais mm. gis nga jigen mère yepp ya yam amul may xaajale mère yepp ya yam. d'accord d'accord d'accord bilaay am liggéey am bilaay xaalis dafa am ñoo xam ne dañoo ni ñu mel am ñoo xam dañ koy ruumanaan ci suuf. dëgg la dafa am ñuy fësal am ñuy def ci suuf mais ñoom. ay sedd ray am na ñoo xam ay mille sedd ray. bilaay moo gis nga mais góor yu jigéen ñi en général ñu ngi wut fu ñuy parparoo te bari na saa jàppal jàppal nit dara ñëgante day am. mais du ñu am buntu tey nga laa sa doom rek nga am buntu. des fois lu ndaw ngay gis nit ki di wax boo ñëwee la dalal la buñ la expliqué yow sax da ngay waar nga li li doogu jar fekk boobu mu am na lu mu dee ci xol bi bëgg la ko wax amul buntu mais le fait que laal nga doomam rek. mu mhm. eh, explosé. loolu laal nga doomam rek mu explosé comme ne ko Maya en euh, waxee loolu la amee ah ci biir kër gi mhm. mais tuuti rek dañuy pose tuuti ci waxtaan bi rek xanaa ñu ñëw ci suñu xeetu baax baax yi te xam xam ne sëyu jeeg ji la ñu wax te yaakaar naa ne li ne ci kaw table bi jeeg daf koy soxla ndey gay loolu nga di nag sa côté lan la. bii nga ma laaj. bii laa laaj. <laughs> Eh, ah jeeg jeeg yaa dugal de. <laughs> lii de mouchoir la. mouchoir xeetu baax baax la. li ko tax a jóg. waaw li ko tax a jóg ak a bëri. waaw wax ma ci wax ma ci wax ma ci li ma soxla li ma bëgg a dégg. xam naa ne a dégg. xam naa ne moom guddi gi nga ci bëgg a dégg. ndax léegi nag moom benn jéeg. looloo looloo ma intéressé. sutura. bii daal boo jëlee xool na nga ca la la ko rek. yaa gën a xam. nga daal ci def li ngay may day daal neex. soo far pare soo paree nag daal di lem ba mu jékki rek dugal sa mbuus daal di tax a fajee rek nga jël sànni ku lay xamal. kenn kenn. kenn waaye boo xëyee boo amee si rangale boo dugalee boo bësee day dem. moo fas am na benn morso la a jël morso bu ñu xëyee baati weer. ñëpp xamal ne day ma dem tey ñëpp xam ne ma dem allah. sutura dafa baax sutura dafa baax mais dafa mel ni am na beneen bu ma gisaat foofu ñu naan lingette mu ngi doon ci kanam waaw. boobu mandi baa ngi. mu ngi nii waaw eh, eh, ay lenset jéggu mandi bi <laughs> dëgg neexul lii. xaama noppi. jëlal boobu jëlal boobu ndax gars yi ngay koo gis jëlal boobu. xam ngeen bii. te pour ak lu ne ci biir dafa am mante wala amul mante. am na mante. oh wax ba bëri mante dama koo bëgg. dama bëgg mante mante. <laughs> mbirum mante dama koo bëgg. ngir yàlla. <laughs> macha allah waaw itam gis naa cristal bi. oh man nga bu tuut bii. bu tuuti bii. Hmm. tuut am solo. tuut am solo. barke yéen a tubé. nii rek ngay def nii muy neex li tam tamit am guur. li mën a ànd ak lu ne. jànq taxawal foofu. Mhm. li dafa am lu muy liggéey wala. am na lu muy liggéey lu bëri. dundal ma ci tuuti récolté kenn ma ci tuuti ma xam. mën na def mën na dem ci meew mu tàng. mën na dem ci meew mu tàng. meew mu tàng waaw. mun na ànd nag sa àllaaji aas. oh ngeen ànd na di ci bëggee ne di ci dund aljanay firdaws. oh muy neex. ay bu ma yàq man xale la ah seen naa chocolat foofu. eh may chocolat dama koo bëgg. waaw jëlal ma ko rek diwal ma ko sa dënn àllaaji aas. eh waaw kay. ay eh, mbay li ci mar lu neex. Eh? ay bu ma yàlla amul xam naa ne gis nga jéegi fi nekk nii nag dëgg neexu dañoo war a téye nag seen jëkkër yi seen porte. moo tax seen di jëkkër di wër di to doxaan rek. di tax jéeg bu si jëkkëram génn di doxaan yow la neex. ak yi xeetu baax yu baax yaa ngi ñuy toog. Ah? boo déggee ci marché bi <laughs> tey koo ci tase ne ko yu baax yi laa bëgg dala koy wan. Mm-hmm. koo ne war ma yu baax pour ma bëgg sama alaaji as da la koy woon góor ñi dañ koy jaay jigéen amul benn gaañ-gaañ boo xamee noo koy defee moo koy defee surtout boo xamee noo koy benn gaañ-gaañ nga soxlaa ko ne benn alaaji as bind ko ci lox bi ñu naan boo am na noo koy utiliser infection mais mm-hmm. parce que na nga da xamuloo na nga koy moo tax mu lay jox infection mais affaire boo koy utiliser da koy def tempo tempo mm-hmm. teg ko ci kot mu neex bii karité la day foroote lu bari. <laughs> pour damp bi. waaw karité bi. day damp ah! damp gi. dampal ma ba mu jekki damp gàngoog. jël sa mouchoir bi ma yaay. laxasal moo ko ci ba mu jekk. bàyyi noonu alaaji asta du nelaw waxuma nga damp pare la ne liggéey bi de déedéet damp ko ba mu tooy nga daal di limas mouchoir bi bàyyi mu tëdd nelaw sa xëy suba ba daal di laal ndox. ah waay. c' est vrai te te te. ndox ndey bi sax dama ci sànni tuuti bala nga koo jël. Hmm. bii chambre huile la. Hmm. bii dafa am noo koy diwee. diw bi système nga koy diwee doo ñëw rek sotti ko ci yére bu mu dem te dafa am mante aussi. Hmm. mën naa ne comme cristal moom la am. te euh, na noo fi noo noo noo ubbeekoo sax moom da lay tëjaat. waaw. ma jox la lan ndax mooy tëj bi. ndax am na jéeg yu bëri fi nekk nii dañoo yaatu. jéeg yu bëri dañoo yaatu. beneen teer dafa indi nag pour delloo waa jigéen ñi. ndax góor ñi nag léegi góor ñi nag dañoo bëgg jigéen bu bu ndaw bu xat nag. bëgguñu boo xam da ngay ñëw rek tey rek mu jàll de. dëgg la dañuy bëgg boo xam da ngay puus di puusaat. Eh, yow waaw nga cee jot. yow yow man mii ngay xam ne samay noor. bii moom xeetu ceegaa bu bees la. waaw. boo am lee envie rek. joxal ma ko jox eh, du ko ci liggéeyal lu baax. yii boo paree wax ma luñ koy defee man xaw ma yii. xaw ma yii boo paree daal daal na mu dara massage baa ngi noonu. waaw <laughs> ah, wax <laughs> te doon di kilifa. c'est que xaw wax may xam lu. macha allah fii daal plateau daal li fi tegu moom allah lépp am solo. Mm-hmm. yaakaar naa ni jéeg yi war nañoo gis lii war cee am ay jàngat. kenn doful ba marché bi boo duggee sa néeg bële ngay yaaji sa jëkkër bu xëyee di kontaan xolam di neex muy neex. benn néeg bu setul de. benn néeg bu setul ndax nee nañu jigéen jigéen bu fanaanee ci lu bu ci lu neex su xëyee day deewantu kanam gi day bële mais góor tam bu fanaanee ci lu neex bu xëyee dem atelier da ko waral. a eh, Mbaye. waaw eh. kanam gi day neex loo ko wax mu ne la wii. defal bopp sa baaraam ma tourné fii ci ma yaa. yow loolee. <laughs> daa jooju. ma yaa yutuma ànd bi. ànd bi nga war a yóotul lànk. Mbaye. waaw li muy ànd électrique. eh pour. waaw bii da ngay branché rek. Mm-hmm. teg mi sa kenn bii da ngay rek. ñaf teg teg ko ci kawam rek bàyyi noonu. Ah, waaw baax na. muy gilli ba mu sotti ba mu sotti laala ma loolu ci sa peñe bi. waaw lii moom nekkul jënd tey ñoo ko soxla. Mm-hmm. même jànk ji. day raxas li ceeb ceeb waaw mais jéeg ji tamit dama leen koy conseillé ñu koy booleeg goowee di ko xooj di naan day raxas ba mu set mooy waa aali ndaak baa nga ne donc day raxas ba mu set waaw aldanke moom lépp la am hmm. moom lépp la am non moom même jànk sax booy indisposé bu hmm. fekkee dafa am ci biir hmm. donc koy jël xool ko avant sax même moment bi dafa baax même bu la dara dalul tamit mu na koy xoot ci butéel di naan. bi mais nag baax am na ci góor ñoo xam ne dañuy naan ceeb ndoxu ceeb. mais baaxul. ok ndoxu ceeb góor du ko naan. Mm-hmm. ndoxu ceeb pour jigéen la mais du pour góor. waa baax na ci jigéen loolu. Mm-hmm. baax na ci métitu biir da ba pare day raxas ba mu set. day raxas sa biir. décortiquer na affaire yooyu bu ci nekk daa am lu <laughs> bii moom daful bëccëg. Eh? bii moom bëgguma jéeg ba koy sol bëccëg. mbaa dëgg fa yàlla bii defi bii moom guddi la supporter guddi la. <laughs> Eh, eh, laal ko sa sër bu weex taal. waaw yii ah. supporter la. Ah. am na ñu koy sol bëccëg dina gëm. lii nga gis sax lii sax lii ba tey am na yeneen yu gën a sew yi voilà yooyu muy mooy ànd ak nuisette yii yii nuisette lay ànd yii nuisette lay ànd yu wér seen yu wér ndax jigéen man bugguma nga génne benn ngay génne parfois nii da ngay parfois nga def lii lii nii chaque jour kenn mënu cee dëkk nuisette bii parfois da ngay dellu cosaan wogge la wodd tey léegi sa xale jigéen ñi wóor du lañ jël de. du xoolal xoolal wóor ma la may ko ba fii de. da nga koy da nga koy nga a teg ci calli nga koy yëngu féeri mooy moo tali boo boodoo sa ndukku ndukku bi nii. a da nga koy bàyyi nii. ay féeri féeri bàyyi ñoom muur ndukku ndukku. ko dëgg dinaa dëgg. moo def ko chaque jour nga defi fa tubaab nuisette affaire des fois da nga koy yóbbu si ñoom maam. billaay bëgg naa tamit jéeg boo xamante ne boo defee fii nii. def sa sër waaw taa sa toq musique. Mm. lëmbalal alaaj. day eh, may day may xaaral ko lëmbal yàlla buy di def toq mbir wi. day def góor da nga koy yàq. waaw man man dama ko yàq jëkkëram. Mm-hmm. góor danga koy fuyal gisee dara si mbedd du bu ko jigéen rombee day mel ni ko wallaay man jigéen da ko war mm-hmm. lu ngeen jotee sa jëkkër lu ngeen jote si biir néeg bi monde entier ci géej nga ko mën a yaree dëgg la jox la respect ko mën a defee muy lan nga koy jommal chaque jour góor mën a am ngeen ngeen ngeen sëy ba màgget te chaque jour da koy jommal parce que chaque jour da ngay indi bu bees waaw jigéen góor dafa bëgg lu bees comme kii lu mu wax di diw muy xat des fois bu ñëwee muy metti ngay jooy. waaw di jooyantu di ba di ba jàpp naan ko yaa may gaañ. ñu sax nee ko yaa ko maa ngi lay wax am na yéen lay seytaane dama bëgg jigéen bu seytaane am na yowatu yooyu jigéen day seytaane mais noonu la am nga seytaane xam nga léegi maa ngi lay mën koy def da koy day day tax waaw dana am envie muy gën a lii waaw ci lii laa ko doon waxee sànq waaw lii lii laay wax lii lii mais ñu koy jël damay bëgg même bu buñ la gaañoo sax del jooy del jooy jigéen day seytaane bëri feem seytaane moo ko koy bëri feem am na am na góor yoo xamante ne yooyu mooy seen salo waaw loolu lañ bëgg jigéen bi yuuxu. Mm. même dara bu la darul même boo yuuxu rek ñoom loolu da leen def mooy seen plaisir dafa am góor yoo xam ne loolu mooy dëgg la moom waaye nekk ak góor mel ni sa jëkkër mel ni moom la nekk dëgg la léeg-léeg nga lancé carte dafa bëri fii dafa bëri fii ñoo xamante ne seen dund dañ ko simple envers seen jëkkër. dëgg la góor bëri yaa leen a gis ñuy taxawaal si mbedd parce que. li ñu bëgg ci seen jabar amuñu ko. dëgg la góor ngi takk parce que amuñu sensu jabar seen jabar. que li ñu dëgg. amuñu ko dunduñu ko ci seen biir te góor dafa war a parce que tamit dafa metti boo xamante day dem liggéey yi rien que pour satisfaire say besoins. indi la si këram manqué woo dara sa néeg ku fa dugg ñeera. boo sañ see génn loo ko mën a fayee mooy di ko bégal. di ko gërëm sax laa la wax doom ju ci judd day baax. macha allah xam nga foofu nag lu ma fa gën a bañ. Mhm. jigéen bi gaaw a nelaw. jigéen bu njëkk a nelaw sa njëkk. man la xoolal boobu moom bu jaree sax bu jaree nga dorogee wu sax pour bañ a nelaw <laughs> wala nga jël Nescafé bu bëri naan ko. waaw wala nga jël 3X bi fa seenee xool ba xajal. boobu daal di daan ko day baax jéeg waru njëkk a nelaw jàmm ko. ndey ngeen ma ñëwaat ci yow dafa mel ni gis naa ay xeetu cuuraay xeetu parfum. waaw fi carte baa ngi carte da koy mujjee bal carte. man xam bëgg carte man. bal carte gi bal carte daa bokk ci man. Mm. la wala la. Ah, ay ay as non yooyu fii amul ay ah, ay carte ay xeetu position moo nekk. Ah, mhm. boo baatiree ba mu neex rek na ko ci yi xam nga nuisette bii. ni ñu ko déggee sax day sama yaram. accu man xam nga nuisette bii rek macha allah. Mm-hmm. daal jongo a lool. Mm-hmm. ndax gis na dañ ko desee nii noonu la mel. boo ko solee mu daal di yaatu lool yàlla yow ba sol ko. bul wax ci yow. Ah. <laughs> daal di koy solal daal di ciy sa fer sew. muy naa muy neex takk sa seenu tànk. Mm-hmm. waaw day baax laal sa tuuti poudre sa kanam. jommal ko. sa sëggul waaw léeg a nag day laaj na nga teg sa ger phase de. Eh, bàyyi mu ne waaw di def sa yëf yu sew ci biir néeg bi di jaabante taas sa cuuraay yi ñëw diggante bi muy toog di la xaar yow nga nekk di bajantu ci biir néeg bi ah loolu àdduna la. loolu mën nga jàpp ay milliards sama gan gi dina ma rey rek. loolu mën nga jàpp ay milliards bajantu boobu noonu mais buñ ne buñ ñeneen. ne ma dem danga ne ko waa agsi naa dee rasu tuuti tuuti muy yàkkamti di la xaar nga naan ko xaaral tuuti rek tuuti nii nii nii nii nii nii xam nga diggante ba nga ñëw day fekk moom bi affaire bi daal dina yéeg ba ca kaw ba moom dootul ànd looloo neex. mooy looloo neex mais boo ñëwee rek yàlla boo ñëwee tëdd na bàcc. dina wax war ko ay xalaat. mu ne ca ne kañam kañam kañam ba sonn amul sens. amul sens affaire daal ñaar la nay neex kenn ku ci nekk na jox moromam gëddam ba mu doy sëkk. Mhm. nga defee affaire yi di neex. kenn ku ci nekk bu yeewoon nag di reewantu. Mm-hmm. lan la ma parfum yi. parfum yaa ngi nii huile sadar laa seet xokotaan. Mm-hmm. waaw laal nii muy neex xam nga léeg-léeg nag làmmiñ bi day <laughs> waaw ne ko rek xool raay ruq ruq te nag ruq bu mu desee dafa war a neex. nekk ak yow di yàgg ci yow war di xeeñ neex. Mm-hmm. ndax na tey ji bu ñëwee sëgg ci yow nga xeeñ xulñi ñi ma dëgg ah day gaaw a daw nag neexu da ngay jékki dikk ne man sa damaa feebar wala damaa sëgg wala damaa def moo koy ndax jéeg foo toll da ngaa war di xëy mu neex. dëgg la muy neex bu ko defee moom bu tëddee benn yàkkamte di wàcc ba ñëw fekk la yaa ngi toog. mu tëdd nit sa wet day neex ci moom. day neex ndax danaan maa ngi dund àjjana Firdawsi. waaw yi sama moromu jéeg yéen waxtaan yeeg yéen yoo xam ne kenn. te day day dëgguma ne am na lu ko mën a faj mu ngi nii ci kanam. lii lépp fépp fu am lu xonk rek. lii la dëgg la bàq bàq yeeg. fokk yeeg fokk yeeg sax bu. Euh, Samba waaw dëgg la yaa ma gën a xam. neex na moom. jigéen la. neex na de fekk fooy ba pare nag ak tàngaay bi nii. Mm-hmm. ngeen baal ma nag ci kàddu bi mais jigéen ñi nañuy wattu. wat fan kaw wala suuf. suuf yi <laughs> day tàng bind daay day tàng. même ah. góor suuf gi. Mm-hmm. ndax tamit tàngaay bi tamit léeg-léeg nekk sa jeeg sa jabar tamit jox ko. Euh, mm-hmm. jox ko ameel ko àq. am nit ñoo xam ne am kersa naan la pas defal lii wala pas defal lee mais yow mii. nekk yaa war a xam carrément. ubbi rek waaye ma foofu noonu jigéen boo toogee ba góor sa jëkkër am karaw da ngay jël crème épilatoire yow sa jëmmi bopp waaw nga dindi sa ba mu set nangu ko sangu naa ko ñëw ko am na góor ñoo xam ne dañoo rëy am. am na am na am na am am na am na am am na am na am am na am na am am na am na am am te bu mu feeñ nag xool benn. <laughs> Ah, bi balaa ñu koy ah, fekk si biir dara du feeñ. waaw kay boo baatalee sa carte ba mu neex nii nga koy def dee. tas ko mu tànn bu ko neex. mu tànn na ko tànn bu la neex. Mm, yaay bay ma tànn benn. waaw ko defee boo tànnee xool lu la waaw ko defee yaay bay. du ma ko laal déedéet kay. su ma di neex. <laughs> ñii salone Ah. am nañu solo lépp teraanga la. abdoulaye abdoulaye loo xam ne dañuy gàncax saa soo ci nekkee nay neex. <laughs> li laa wax. te <laughs> lu neex kat du doy. Maya loolu laa gëstoo. di leen sant di di leen wax tamit <laughs> aw ma ci kër waaye lu baax ñëpp ko xam. dëgg la xam ñu ma balaabe man ma wax leen. parce que internet bi moo tax. Mm. tiktok yi moo tax. te ñun tamit jigéen nga bala a dem sa néegu sëy da war a jàng lépp. dëgg la te duma fen damay suivre am na ñoom dañuy wax si ay sëy affaire yooyu. Mm-hmm. Mm-hmm. dama ko si bien bon. dëgg la parce que man tamit bëgguma dem ba sama néegu sëñ ñu may jàngal dès maintenant. lay war a jàng lu ma wax fii yëpp nekkul ne dama koy dama koy def mais. Mm-hmm. dama koo jàng. dëgg la ko ëllëg sama jëkkër. ma defar ko ba bu bu gisee. am jigéen war a ko. Euh, surtout di leen jox dig daje ba beneen kontaan naa trop. <laughs> ñu la a kontaan sama maya <laughs> euh, ndege looy tàggatoo. ah di wax naan euh, jigéen ñi. ak sama mbokk góor ñi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ah bu baax a baax di wax naan lépp lu fi jub rek yàlla la lu fi danga matadi doomu aadama la toog mhm. defar rek moo ñu tax a jóg mhm. maa ngi nuyu ñëpp di nuyu suñu mbokk internet yi ñu ngi nuyu waa Rastalala Basan di mhm. nuyu sa waa ñu mu tudd sax groupe sa jëkkër naa leen di nuyu diine ak jamono nuyu naa leen ñoom si daak sa ko ñoom Pape Saliou ñoom Tambari Iso Diouf surtout mm-hmm. maman ci loo ñu ngi lay nuyu di leen ziara di nuyu ñëpp di leen safoo di leen tiitaro di leen tàccami ko di leen ñaanal jàmm di wax Lougaré TV ci kaw ci kanam ci lu baax Ndeye ñu ngi lay jaajeufal sama invité bi kontaan nañ tamit ah, ci euh, yombal bi nga xamantene ni yombal nga ñuko tay pour ñeu fekk suñu fi ñu ngi lay jaajeufal di am contentement bu baaxa baaxa baax di wax ni yalla na la yalla jubole ak sa borom kër. ah yalla sam la samale njaboot gi ci barke Cheikh Abdou Karim Mbacké. Euh, Maya yow aussi tamit sama xarit sama doomu nday ah nga def liggey bu rafet machallah fa li ci dëkk bu sel bu muy Touba. Mm. machallah def nga fa liggey bu mucc ay yëpp ñu ci kontaan bu baax di la ci félicité encore. mais maa ngi lay jaajëfal aussi tamit ci euh, yombal bi ñu yombal yow it ndax yow sax ci kër gi nga bokk mais yombal nga ñu ko te jàpp nga ci bu baax a baax a baax ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. di jaajëfal tamit mbokk yëpp ah mbokk internet euh, Lougaré TV yi ñu ngi leen di jaajëfal di sant ak ngërëm di béggee ñëpp di santaat bu baax a baax ki nga xamante ne mooy El Hadj mali Malick moom mi nga xamante ne ni mooy président. lu Louga TV ñu ngi koy jaajëfal suñu papa jooju di la wax ne yàlla yàlla yàggal taxawaay bi yàlla may la mucc ko rafet wéral cër yëpp ci barke yonent bi maa ngi gërëm ñëpp nag rawatina suñu ami internetu euh, ak TikTok